aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi euh, ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ Touba cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a ak wéram euh, tey jii mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rakkaati gàmmu yemoo ak dibéer Eh, yaboo ak gaaw di séentu bu njëkk ci weeru eh, maamu koor ni ñu ko baaxoo defee nag di ko ànd ak kuréel bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu weer wi tàmbalee ko sëriñ Mouhamadul bu Bousso imaam waaye sëriñ Abdou Diop imaam mi nga xam ne moo yore kàddu kuréel bi waaye di ci feggoo nag ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji waaye di ci feggoo ak sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous nekk ca Darou Mouhty waaye sëriñ Modou mbakke si mi nga xam ne moo jiite mbooleem euh, représentant xalifa général mu mourides yi nekk ci région yi baaxoon nañ di ko def ñaar fukki fan ak juróom-ñeent sëriñ Abdou Diop dana yéene ci rajo jumaa ji wax ñu ne sëriñ bi nee na nañu maase séntu weer wi te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppee danañ ñëw ci bunt soow bi nga xam ne moo jàkkaarloog tali Alaaji Babacar Kebe Ndiouga yàlla na sunu borom leeram Eh, su ko defee nag ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak bokk yi nga xam ne ñooñu ciy jàppale lépp loo xam ne xamees na ko ci it danañ jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh mun Muntaxa ngir leeral ko loolu. Eh, tey jii nag mooy séntu bu njëkk damay bàyyee kàddu gi Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kàddu kuréel bi mu leeral ñu li nga xamante ne bii moo jot a xew. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko Serigne Fallou Garas di la waxee rek. baaxoo nan bis bu mel nii ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi nu dikk ci jumaa ji yéene sëñ bi ne nu maas yi séentu weer yi te te loo nga nga yëgle ko léegi biñ biñ defee noonu ba noppi nag ba yéene ko ba noppi yàlla dogal na biñ génnee nun ñëpp yem nañ ci weer gis ko gisandoo noon ko biñ ko gisee nag yàlla dogal na ñu jokkoo kër xalifa bu <coughs> Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg te biñ biñ ko ko yëgalee it wax na ne kon nañ nañ yëgle ne weer wi feeñ na tey kon ñëpp a ngi jaanloog weer wi fii nu toog kon ñu xam ne weer wi feeñ na suba ci dibéer ji mooy benn fanu maamu koor wi kon ni ko ñëpp xam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi loolu mooy déclaration bi kon ñu xam ne weer wi feeñ na tey jii ci gaaw bi. yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ji séentu bu njëkk kon daal ñu jàpp ne kon weer wi na suba ci dimanche mooy doon benn fan ci weeru maamu koor ñu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mamadul Muntaxa yal na ko suñ borom dolli aw fan ak wér may ñu itam ñu àndandoo dem poro xaan gi nga xamante ni moo dëgmal eh, te lépp luñ ca ñaan yal na ko soxna jaaratullahi Mariama bu sa nangu wasalaamualeykum eh, wa rahmatullahi taala